xibaar bu ñu fi dab léegi boo xam ne dañ koy confirmer nag loolee euh, di combat Modou Lo ak Siteu gars yi combat bu mucc ay teg nañ ko ci taabal ji combat boobee sénégalais yëpp ñëpp dañ koy xaar ndax bu nu xoolee guddi yi ñu ci Sénégal kii di Siteu ak kii di Modou ñoo fi ëpp ay supporters gars yi maa ngi leen di ziar di leen béggee ñaanal leen jàmm ak salaam élection yi 2024 yi yàlla def ci sutura suturaal Sénégal ba ki ko war a jël nga xam ni moo gën ci Sénégal te ñëpp bëgg ko yàlla dogal mu jël ko tawféex ak tey siir ci loolu information yaa ngoog ñu sàkku ci yéen abonnement yi ma nga noonee officiel na euh, Siteu Modou Lo euh, daanaka euh, ñooy war a bëre combat royal la mu nekk jàmbaar production moo ko décorosé teg ca taabal ji ay million yoo xam ne nag yu baree bari la car masala ndax mbër yi kenn ku ci ne bu fekkonte ni murake nga mëq nga ba xamatoo fooy teg sa tànk ci wàllu alal joo xam ne ju mucc ayib la ndax alal ji maanaam waxuma la publicité yi sax car masala waaye lu jëm ci wàllu li la di yeeg yooyu dana takkarnaase ndax kii di Siteu xam ngeen làmbam daanaka stade bi da koy duy ba mu fees Modou Lo ñëw feelu ko kon loolee daanaka fi mu toll nii day nekk beneen tournant ah, ci li nga xam ne mooy làmb joojee nga xam ne ah, kii di jàmbaar production ah, teg na ko ci laabal taabal ji Modou Lo nag bu ñu wàccee ci moom gonek parcelle gi gonek Fandène gonek ki nga xam ne daanaka moo nekk Tiwaawan jaar Thiès wuti Ndakaaru parcelle unité 1 ba diis moom moomee nekk ki nga xam ne nag boo gisee ñu wax ci moom lu yaatu moo yor cëggal gu yëm ndax moo yor lii bóof ci nga xam ne mooy gétt gi kon képp ku bëgg a yuy euh, ki bóof ci gétt gi daanaka wax dëgg yàlla da nga daj lu mburu daj woon ci taal loole nekk lu am am solo ñu bàyyiloo leen ko xel bàyyiloo ko xel euh, kii di euh, Siteu nga xam ne moom it jàmbaari fàkk te di la gone ak jàmm gën gi nga xam ne ndaw ñëpp moo leen bëgg tamit jàppale ndaw ñi lu baree bari ngeen tekki seen gët ñi ko xam bu baax a baax moom moomee tamit kon di déel boo xam ne daanaka déel ci biir banlieue bi la ñaari mbër yooyu nag kenn ku ci mën di wax dëgg yàlla mën ngaa taxawaay boo xam ñoo ci mën a gañe euh, ngoonuk euh, li nga xam ne daanaka moo nekk novembre 2024 gars yi jàppagul bis bi exact waaye nag promoteurs yi jàpp nañ ni ci novembre 2024 bii ñu nekk danañ ko coppati ndànk na nekk mbégte nag jërë ngeen def ci kanam yeneen information ñu bàyyi loo leen ko xel